Mon texte s'appelle Devoir de sensibiliser. Mais avant de démarrer ce point de presse, je souhaiterais que nous prions pour le repos de l'âme ou des âmes de ceux qui nous ont devancés hier, dans les semaines qui sont passées et dans les mois qui sont passés, qui sont partis à cause du coronavirus ou de la pandémie du coronavirus. Devoir de sensibiliser à propos de la gestion de la pandémie à Thiès. Il m'a été donné de vivre, de connaître, de percevoir, de comprendre, dans le centre de traitement de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, que la propagation du coronavirus a évolué de façon exponentielle dans la région de Thiès et dans notre ville dans toutes les quatre communes sur le territoire de la mairie Thiès-Ouest, qui s'est révélée la plus infectée. Nous en sommes à Thiès-Ouest à plus de 150 cas d'infection. Il urge que tous les délégués de quartier, les imams, les associations des jeunes, les organisations communautaire de base, les personnes ressources, comme les responsables d'associations, les Badienogor, les Serindara, les leaders, etc., de se remobiliser afin de stopper la chaîne de transmission de virus qui devient préoccupante. C'est une obligation morale pour nous tous de respecter les mesures barrières. Le mal atteint des proportions inquiétantes. Il faut admettre que personne ne doit se croire à l'abri d'une infection ni être épargné par l'agression du virus qui tue chaque jour, chaque minute, un virus meurtrier, surtout les personnes âgées, sujets à maladies chroniques comme l'asthme, le diabète, l'hypertension, la drépanocytose et toute autre maladie pulmonaire. Il est évident qu'une nouvelle stratégie de communication s'impose impérativement, même s'il faut faire du porte à -porte pour prévenir. Remobilisons-nous pour sensibiliser. Remobilisons-nous encore plus les populations en vue d'une lutte efficace contre la propagation de ce tueur. Nous lançons donc un vibrant appel à la jeune génération qui se croit épargnée et agit quotidiennement avec une insouciance, une insouciance remarquable et une désinvolture inquiétante dans les espaces publics à se sentir plus responsable à se ressaisir et de prendre au sérieux cette menace qui pèse sur leurs propres parents, les adultes, les personnes à risque qui gravitent dans leur environnement. C'est donc un devoir d'agir, un devoir de dire la vérité qui nous motive et je reste convaincu, avec une sensibilisation à la base, sur des basée sur des stratégies appropriées nous aiderait tous, aiderait l'État du Sénégal via le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour réussir cette mission que nous devons prendre au sérieux. Et nous pensons que nous tous, nous allons nous remobiliser pour cette lutte contre la pandémie. Il vaut mieux donc tenter, pour nous, il vaut mieux donc tenter de nous protéger, protéger ceux qui sont encore vivants et à qui il revient le devoir de prier pour ceux-là qui sont partis définitivement dans l'au-delà. Que Dieu les accueille dans son paradis le plus céleste. Signé Gustave Emmanuel Fay, journaliste reporter d'Images, spécialisé en production audiovisuelle multimédia enseignant formateur bataaxal bi nag ma di ko dëppee ne man mi dama am maanaam mission boo xam ne dama war a sensibiliser dama war a wax ak askan bi ndax dafa yàlla dafa dogal mu tànn ma si biir tànne fii ma feebar am Covid 19 daal di dem fi ñuy wax centre de traitement de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène si noonu gis naa ràññee naa fekke naa dem naa it analyser naa dund naa mbir mi kon bu ma génnee dafa war ma wax ak sama askan dafa wax dafa war également ma wax ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal Sénégal moo xam fii la ñu dëkk moo xam it bitim réew la ñu jóge ñëw ut si maanaam doole wala ut si sutura wala ñëw jàng si fii ndax si biir centre traitement wi am na yeneen nationalité yoo xam ne duñu nationalité sénégalaise looloo waral may wax nañ ñun ñëpp dañu war a sóobuwaat ci liggéey bi wax ak askan bi ñaax leen ndege mbir mi law na ci biir région bi yëpp law na ci commune yëpp law na ci Thiès Ouest te daanaka Thiès Ouest fa mel ni moo jël raw gàdd bi lu toll ci téeméer ak juróom fukki nit amee nañ feebar bi ñu testé leen ñu positif moo tax ci sama kàddu bu oyof bii ak sama jëmm bu motadi bii maa ngi ñaan waa Sénégal rawatina leader yi nga xam ne am nañ kàddu te bu ñu waxee ñu dégg leen muy imam yi muy làbbe yi muy évêque yi muy itam ñi nga xam ne ñoo nank kuréelu ndaw yi kuréelu soxna yi ak kuréelu waxambaane yi rawatina ñi ooye bàjjenu gox ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daara yi ñoo ñëwee ñoom laay woo ñu daldi àndaat ci liggéey bi ndax ñoom ñu ngi ko doon def bés bu nekk su ko defee ñu mën a daggkat li nga xam ne moom mooy buum bi wala chaîne bi nga xam ne mooy indi lawtan bi di yokk bés bu nekk cas communautaire yii si loolu ma njortu ne dafa war mu yëkkati sama kàddu man mi nga xam ne feebar naa dem ñu faj ma ba ma wër si noonu ma fas yéene si ànd ak sénégalais yépp fu ñu munti nekk ak fu ñu munti bokk ñuy wax ne nag ndaw yi nga xam ne ñoom dañu nekk si diggi doole njorte ne bu asamaan doon ñëw sax ñu téye ko ak seeni loxo njorte ne feebar mënu leen dal njorte ne mënuñu am gàllankoor ñoom tamit ñoom lay woo ñu ubbi seen gët te xam ne su dee seen wér-gu-yaram ñor na leen su fekkee na sax feebar bi mënu leen dal wala dalu leen mën nañ nekk ay porteur yoo xam ne dañ leen lor seen maam bi nga xam ne mooy jur seen waajur bu góor wala seen waajur bu jigéen te ñoo ñee seen doole jeex na seen kàttan jeex na te seen soldaar yi nga xam ne ñooy xeex ak virus wala ak infection bu munti doon seen soldaar yooyu dañu néew doole kon nañu aar seen bopp aar ñi nga xam ne ñooy suñu waajur yu góor yi ak suñu waajur jigéen ñi rawatina ñi nga xam ne dañu am feebaru diabète hypertension drépanocytose wala feebar yi nga xam ne day indi loraange bu mu munti doon kon nag ñu njort ne communication bi maanaam soppi wax doxalin ci waxtaan ak askan bi dafa jot mu jar kon ñuy dem ci këroo kër wala am yeneen laaj ci ñu jaar pour mun a nag waxtaan ak askan bi xamal ne leen ne feebar bi am na feebar baa ngi lore te mu ngi yóbbu ay bakkan yu bëree bëri kon si noonu may ñaan nag ñi nga xam ne ñoom ñoo am kàddu ñii nga xam ne itam ay leader lañu ñu ànd ak ñun jaaral ko ci état bi ministère de la santé ndax ñoom ñu ngi am lu ñuy liggéey ñu jàppale leen ci liggéey bi ndax Sénégal mun a mucc ci feebar bi lii nga xam ne moom mooy lawtanu Covid 19 bii di ko ooy mbas bi mun a dakk te bu am dakkee wér-gu-yaram am bu wér-gu-yaram amee ñëpp delluwaat ci seeni muraada ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jóge yàlla ak malaaka yu baax yi teeru leen ci arjana ba gën a kawe kon bataaxal gi ko def mooy Gustave Emmanuel Faye di bokk ci kuréelu waaye kat tas xabaar yi di am nag ab xarañte ci li ñuy wax production audiovisuelle multimédia te jàngalekat di formateur ci daara yi gën a kawe